bismillahi kay dem Mbàkke damay jégalu ci photo suma photo bi naan nuru te muy koote bu amoon ku lay nuru xanaa kon sa doom yi te ko ci ne dala nuru bu gënoon talu bi ndax doo kenn kenn du yow man nañ laa xaw nuru waaye ci xaw a rek lay yem ndaxte kenn du la nuru danga nuru nit te doon ki ko waral ca sa nit te doon di ko nuru ci sa bureau moo tax ku ma nuroo léegi yow ko tuub ñàkk sirro te njar na sax ma di xeesal tax ñu bañ koo waxati baate photo bi tax ñuy wax benn bañ cee génnati tuub naa tuubaale leen nan fàttali ko lansaar bamba yàlla yàlla di moom moom laa waxoon lansaar tuub naa tuubaale leen yàlla di moom laa waxoon lansaar atin ci kaw zahir ci suuf dogal baa nga amee ca kaw ki wàcc fii moo ko waral léppam da ko denc ca kaw baatin ca ci suuf dogal baa nga amee ca kaw ki wàcc fii moo waral dafa denc ci mbiram ca kaw nanu naddil te lu noroon noddantiku te féete kaw a Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp yaa leen féete kaw